bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama faqul alhamdulillahi alladi najjana min alqawmi alzalimin fajaani bima bihi fajana باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء jërëjëf maa ngi leen di fay yéen la waa waa 24 actu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fay. chaque année équipe bi day ñëw di ànd ak yow teraanga yi nga xamante ni yaa ngi koy def ci sa biir waañ bi euh, ban mbégte nga am tey jii. mbégte bi ñuy am bés bu nekk rek saay bu bés bi jege see rek moom dañuy am. wala mu yokk di dolli di sant yàlla bu baax di ñaanal euh, sëñ Muntaxa Bachir yàlla yàggal ko sumu ànd ak wér ñaanal suñu sëriñ suñu wasila Cheikh Abdou Karim Mbacké sëñ Fallou suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér euh, ñaan nit ñi màggal màggalu jàmm ak salaam euh, tout en respectant les gestes barrières di takk masque yi ni ko suñu kilifa sëñ ba Bachir digalee euh, ñaa def euh, jàngi ay xasida yi bernde euh, kenn ku ci ne fa nga war a yam nga yem fa war waxtu ñaan bu jotee ñu ñaan ba keroog ñu taxali ko gan yi ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam man maa leen gën a kontaan di ñaanal seen équipe bi bu baax yàlla na suñu borom yokku leen ba ngeen yëg ko yàlla suñu borom dafa leen taw feex ah ngeen yegg fa fépp fu ngeen bëgg a àgg ci barke Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam màggal gu jot yàlla nañu eh, nay nay déroulé nii ci barke Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam alfata xasana laka xitaabi bi xurufin xaana liya bi afiraqiya al alxaana haddaytana walam tazal rahmana وقت لي تقديم والأمانة أعطيتني الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقران لي وأبت البشر والجيران كفيتني قوما حووا قسرانا لي تصفي الأمر والجنانا تهب لي بلا عنا الجنانا زللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي أدانا يذكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا نفيت عني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت والدقانا جذت البغار رد لي ممانا بالمنتقى أتبت لي زمانا جزاء ربي راد للسلطانا مع الأمين والمناطانا أذكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا عيانا